Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Touba ca kanam di kuréel ki nga xam ne dañu ko taxawal ci ndigalu xalifa général kulu murid Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke te muy tëwoo lépp lu jëm ci wàllu suqali dëkk bu sell bi di Touba mu di wàllu développement gannaaw ba ñu ko taxawalee nag mu war a toll ci fukki weer jot nañu ndigal ci xalif général kulu murit ngir dugal seen loxo ci wàllu wér-gi-yaram ñeenti barabu fajukaay yoo xam ne fas na koy ne tabax ci biir dëkk bu sell bi di Touba dëppale ko ak yu méngoo ak jamono loolu nag moom sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér joxe ndigal ngir ñu door ko ñeenti fan ci weeru safar wi ñu nekk dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñeent wala ñaar fan ak juróom ci weeru octobre cérémonie de lancement bi daañu ko amal ci Touba Lansar ci teewaayu kilifa diine yi bootu ci yoonu murit ak kilifay aada yi muy liggéey bu am solo boo xamante ne bii Touba ca kanam fas na ko yéene sumb ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir suq suqali wàllu wér-gu-yaram gi muy ñeenti barabu fajukaay yoo xam ne fas nañ koy ne tabax ci biir Touba ku wax développement wax wàllu wér-gu-yaram ba tax na nag ñoo ngi ciy woo mbooleem ñi nga xamante ne bii dëkk bu sell bi di Touba ñor na leen wala liggéeyal Serigne Touba Touba Lansar lay amee ñeenti fan ci weeru safar képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 33 978 25 37 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam